bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabbil aalamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillahi wa ala aalihi wa saxbihi wa sallim ixwatil kiraam mustamicuuna al kiraam asxaab alfadilati asxaab almaali maali alulama wal asatizi wal aimma asxaab alsiyaada ayuha saada assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu bokk yi tëdd yi nuy déglu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yal na nu yàlla boole Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaare yonent yi alayhimu salaam da ngeen ci ànd ak seen mbokk Oustaz Alioune mbay ginnaaw loolu nag ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër di ñaan yàlla na yàlla faj aajo yi teggi tiis yi saafara jàngoro te jéggal a bàkkaar yi yal nañu yàlla xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa bu yàqu yàlla bu nu lu am yal na yàlla lu nu ñàkkit am yàlla yal yàlla gën a sàmmal boppam yal yàlla gën a téyal boppam yal yàlla gën a aaral mii di Sénégal yal fi yàlla gën a def jàmm yal na fi yàlla gën a def juboo bi jeex seydil wujudi alamin shuhud yal na yàlla tàppe xol yi benn la sàppe yi loolu tollale mbagg yi kenn ku ne yéen sa moroom jàmm Sénégal jëm ca kanam diine jëm ca kanam yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na def yàlla na yàlla mosul ci ndog yàlla na yàlla mosul yàlla na yàlla ci bët bu aay ak lépp loo xamante ni dana dam yoon ak di ko dog ak di ko fanq yàlla na yàlla dox suñu diggante ak loolu bi jeex si di lu wujjudu alama jàmm ji nu baaxoo ci Sénégal yooyu jàmm yal na sax yal na meññ yal na car yëpp banqaas yi soqi laal fu ne bañ mboolem fi yewoo di doomi dëkk bi mbaa ngay gan ci dëkk bi te indi jàmm yal na la jàmm jooju téq laaw la laaw sa njaboot yàlla sañ na ko mën na ko yal na ko yàlla dafa bi jaay si li wujudu alma shuhud noo ngi ziar ñëpp tey ñaanal bokk yi nga xamante ñoo tëdd ci lali hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp roofaat leen kàttan tàqale leen bépp ndok te dafa leen shifa taam ci seen yaram ba ñu dellu seen njaboot bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi su feebar di ko sooxaale yal na yàlla saafara leen yàlla sañ nga ko mën nga ko yal na ko def di jàll bokk yi jiitu ji ca barsëx yal na yàlla teeroo leen ak yërmandeem yàlla na yàlla yërëm leen te xaaral àjjana yàlla bu leen yàlla topp dara bi jaax sayyidil wujuudi alami shuhuud tabaarakallaahu di beral nuyu ak ziar suñu kilifay diine yi rawatina xalif généraux yi mu ngi leen di ñaanal mu ngi leen di ñaanale yal na yàlla gën a sàmm yal na yàlla gën a aar yal na yàlla dimbali leen ba diine jii nga xam ne ñoom lañu taamu nekk ci sunu kanam yal na ko gën a yàlla sàmm ci seeni loxo ba dara seytaane bañ ko cee mën a bañ a am yàlla bu ci seytaane benn am ñu benn yoon ñun ñi di taalibe it te yaakaar it yal na yàlla teg ñu ci ba nu bañ a fakkatal kilifa yi bañ leen a gën a xam ba dugg leen ci loo xamante ni bëgguñu ko woon yàlla defal na tawfiix defal na fajug aajo ci mbooleem nag aajo bu nu am àdduna ak àllaaxira loolu ki ko am kenn dong la muy benn buur muy mawlaana jalla jalaaluhu azza kamaaluhu wa tabaarakallaahu euh, mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci seen histoire yonent yi alayhimu salaam xam ngeen ni toppoon ngeen ci yonti yàlla yuusufa alayhi salaam ba yonti yàlla yuusufa jeexoon na ci ajjuma ji nu génn tey ñu ngi dalaat beneen yonent yonent yàlla daawuda alayhi salaam moom lañu taamoo waxtaane insha allahu ci jamono yi nu toll ndax sunu boroom subhaanahu wa moo wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko fàq su sil qasasa nettalil fee yi nettalil histoire yi laallahum ndax ñu mën xalaat science soo gisee ma lay nettali it histoire yonent yi te fekki woo ko woon damay dëgëral di la xamal ni kat yow ci yonent yi nga bokk yàlla wax na ko ba tàyyi ni ko dëgg dëgg ci yonente nga bokk ñi la naan ñu lay wax xamal ni innaka la minal mursalin yaasin mu ne ha mu ne ko innaka la minal yaasin mu ne ko ha mu ne ko wal quraan ci alquran bu tedd bi yaasin tur Muhammad la waaw Jalaali loolu wax tafsir Jalaali loolu wax inna ko giñ naa ni ci ñi ma yónni nga bokk maa la yónni de waaw ala siraati mustaqim nag yoonu jub xocc laa wax mu alquran ak diine lislaam ji maa la yónni de kon nag boo gisee waxtaane yonent yi suñu borom subhanahu wa taala dafa wax ni wa iza taxasna al an an al anbiyaay fi al quran al karim fa in al xadafa al barjuwa min zalika huwa ibratun allati taltamisu min daawatihim li annahum rusulullahi ila annaasi wa daauuna ila alxaq li irshaadi albashari wa isaadihim wa qad dakara allahu azza wa jalla fi kitaabihi alaziz taaifatu min alanbiya taaifatu min alanbiya wa lam yazkur jamii alanbiya walmursalin fa qaala allahu taala fa qaala allahu taala wa rusulan qad qasasnaahum aleyk min lam naqsushum aleyk suurat Faatir suñ borom subhaanahu wa daf ko ni du yonent yëpp laa la wax seeni mbir ndax ñoom ay yonent lañu waaye yónni gi ma leen yónni ak waaraate la ak xoppe la point de départ la référence la pour ngeen xam ngir mën a def ci gestu yónnente bu nekk ba nga bala yàlla yónni fan la sa tolluwaayu yónnente nekkoon ndax ñoom ndaw yàlla lañu yàlla leen yónni li irshadil bashari ngir ñu mën a orienté mbindi fi man leen na sauvé tam ñu texe dem ci àjjana suñu borom nag wax na ci alquran kasim karim daal ni ko yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na kuréel boo xamante ne nettali naa la seen mbir waaye am na kuréel boo xamante ne waxuma la seen mbir mu ngoog kon mu mel ni yonent yàlla muhammad sunu borom subhaanahu wa tudd na ci alquran ñaar fukk ak juróom yoo xamante ni mu ngi ci alquran karim fukk ak juróom-ñett yàlla dajale na leen ci suratul an'am ngoog mu tudd leen ci sunu borom dafa wax ni wa tilka xujjatunaa aataynaaha ibrahim alaa qawmihi narfau darajaatin man nashaa inna rabbaka xakimun alim mu ni suñu bon wax ni ñii ma leen tudd tilka ñooñu xujjatunaa ñooy sunu lay yoo xamante ni maanaam joxoon naa leen samay lay joxoon naa leen samay preuve ndax yàlla dafa lay jàng la pare dafa layoog jaam ñi ba pare nee na ma jox Ibrahima ak jox ko ba mu mel noo xamante ne nii nit ñi daañu xam ne kii nitu kese kese moom la mel noonu ma jox ko daraja joo xamante ne kawe na daraja yi jiitu woon waaye na am na ko ko sut daraja may seet nag man yàlla ki ma neex def ko ni ma neex ci moom melal ko itam li xam te noonu la mel inna Muhammad sa borom xakimun ku xarañ la alimun te xam naka la koy teqantale ñu nag wahab naa lahu isxaq eh, mi ngi ci mi ngi mi ngi ci mi ngi lay limal hmm, mi ngi lay limal yonent yi mu wax dix-huit yi mu wax ci surtout anam mu ni wahab naa lahu isxaq wa yaquba kullan hadaynaahu kulla kullan hadaynaa wa nuuxan hadaynaa min qabl wa min zurriyatihi daawud wa suleymaan wa ayuba wa yusufa wa muusa wa haaruuna wa kazalika najzi almuxsinin wa zakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyaasa kullu min alsaalihin wa ismaila walyasa wa yunusa wa luutan wa kullan faddalna ala alaalamin tabaarakallah kon gis ngeen ñooñu mu tudd noonu ibrahim isxaq yaquba nuux Euh, Daawud Suleymaan Ayuba Yuusufa Muusa Haaruun ni ki nag Zakariya Yaxya Isa Ilyaas nee na ak Ismaayil ak Alyasa ak Yunus ak Luutan fukki yonent ak juróom-ñett yëpp mu ngi dajaleeloon ci suratul An'aam mu ni itam mu amaat nag yeneen yonent yoo xamante ne juróom-ñaar la mu des sept wax naa dix-huit te vingt cinq laa la waxoon mu ni kon amaat na yeneen sept yoo xamante ni yaa ngi leen di fekk ci yeneen i ayat al quran muy aadama alayhi salaam idris huud saalix shuaybu zulkifli ak sayyidul anbiyaai wal mursalin muhammad ibn abdillahi fukki yonent ak juróom yoo xamante ni am alquran tudd na leen fàng nga xamante ni yonent yi yi alquran indi vingt cinq yi la eh, tekkiwul ni am na ñeneen ñoo xamante ni yàlla eh, tudd leen te yónni na leen ci yeneen i continent ndax taraanga ju mel ni yonent ak eh, xuppe gu mel ni waaraate bàyyi ko ci yàlla yàlla du ko jagleel benn xeet rek ak ni àdduna bi mel xëy na jox leen ko waaye mën naa mu yónni ñeneen même sax mën am ñu ci yónni taxay du leen tudd ndax nee na minhum xasas na wa minhum man lam naxsushum am na ñoo xam ne wax naa seen mbir am na ñoo xam seen mbir amaan na mu am ñoo xam xëy na waxuñu leen seen mbir mën naa ñu yonent ni mën na nekk yonent te ko xam mën na nga nekk nabi nabi nabi ak mursal na nekkul benn nabi ak mursal euh, nabi mooy ku ñuy déey ku yàllay wax nga xam ne lii nangam la waaye nag wax loowuñu la nga nga xam ni lii wala nga nga di nabi yi waaye doo ko xam ñu nëbb la ko nëbb la yëpp nga nekk fi moo tax doomu aadama yi koo ci gis rek tere la ndax doo xam lu yàlla na ma ci moom doo xam fu mu fiite boroomam moo tax ni nit ñi di def jékki-jékki rek ŋàññi nit jékki-jékki dafa lu ñaaw ci deru nit nit kookee ngay teg lu ñaaw ca moom bul xam fu mu féete yàlla bul xam fu ko yàlla teg ci wetam bul xam lu yàlla na ma ci moom moo doon alxalqu kulluhu mazahirullah mbindeef yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp jëmmi suñu borom yu taxaw lan boo xasee ba xam loolu koo gis tere la eh, suñu sang ba Mawlana Cheikh Abdul Aziz Dabakh rahmatullah alayhi jikkoom du rafet ak fonk doom aadama kenn lu ne moom bëgg nit ak noo mën a mel wala gisee defe na ne day mel ne yaay mu bàyyi ko ci yàlla nga mbooloo mi muy bari bari bari bari bari bari abdul aziz ma ngay xool ku mu jiite maanaam ma ngay xool ku ko maanaam ku mu jiital ku muy lu mbooloo mi bari bari yaakaar ni mooy jiite mi ngi xool ku ñëpp xëy na jàpp ne kii de warul mën a jiite ndax la mu sol wala boo xëy na euh, dafa ñëw nii rek yem ci mbooloo mi nangam ak nangam nangam mu xool ko ñoddi ko ci biir boobu nag kay jiite mbooloo mi kay nga jiite ngay wil wil li xiin mun mën na doxal nga jiite doxal nga jiite ñu julli daal di liqaam xam nga loolu jox nit cër mën koo paase wekk ko mun mën koo paase yëkkati ko mën koo paase ginnaaw yàlla nee na am na ñoo xamante ne nettali naa seen mbir am na ñoo xam nettaliwuma seen mbir koo gis teralal man na am ngay romb nit te xëy na kooku bokk te yàlla nettaliwul seen mbir te xamoo mu nag <clears throat> eh, mu mel ni am na benn waykat mag wax na ci way way na ko ci benn benn benn benn bind mu ni tilka xujjatuna minhum samaniyatun min baad ashrin wa yabqa sabaatun wa humu idrisu huudun shuaybun saalixun wa kaza zulkifli aadamu bil muxtaari qad qutimu ngook ngook waykat bu waykat arab bu am solo la xam ne ko tënk ci loolu le waaye gis nañu ni mbokk yi alquran eh, ñi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci Afrique am na ay yonent yoo xamante ni ay africain lañu xam ngeen ni yonent yàlla Yuusuf eh, Égypte la woote woon eh, daanaka lépp ci carrière bi yëpp Eh, foofu ci Égypte la ko def woon eh, ni ki noonu itam yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom itam eh, africain la ndax ñu woote Moussa yëpp xëy na Yuusufa moom dugaloon na waa Israil pour diggam yëpp dugaloon waa Israil foofu la ci Égypte waaye Moussa moom tamit mu ñëwee pour diggam yëpp moo doon génnee Eh, waa Israël foofu eh, ci foofu ci ci Égypte nag yonent yi daawoon fekkante yonent yi ñoom ci moom wax seen wàllu bopp daawoon fekkante daawoon nañu tam mbokk mission waaye gis nga mbokk yi <clears throat> eh, ñi alxuraan tudd ñëpp ci yonent ñi ci ëpp ñu dëkk Asie Asie lañ dëkk ak Afrique tuutee nag comme ni ma ko waxee léegi rek eh, yàlla am na ci yërmande boppam am na ñu ñu yónni xëy na feneen te tudd ñu leen yàlla rek xam moo tax mu ni wa in min ummatin illa xalaa fiiha nazirun waaye suñu boroom dafa wax ni duma alak aw xeet mukk lu dul dama yónni ci ñoom ab yónnent walla ma yónni ci ñoom ndaw mu jàngal leen diine nee na wépp xeet woo xam ni yónniwuma ci ñoom ndaw joxuma leen téere yeewuñu ba ñu dee ci réer duma leen mbugal duma leen lakk sunu moom nee na wa ma kunna muazzabiina xatta nabaasa rasulan du ma ab du ma mukk aw xeet lu may dama yónnee ci ñoom ndaw ñun wax na ni ñi yàlla yónni sunu borom subhaanahu wa nga xam ni sunu borom subhaanahu wa taala euh, ca tudd ay yonent yu baree baree bare daal di ni tilka xujjatuna aataynaaha ibrahim ala qawmihi narfau darajaatin man nashaau innak inna rabbaka xakimun alim innaka xakimun alimun wahabnaa lahu isxaaq wa yaquuba kullan hadaynaa wa nuuxan hadaynaa min qabl wa min zurriyatihi daawud wa suleymaana wa ayuuba wa yuusha wa yuusufa wa muusa wa xaaruun wa kazalika najzi almuxsiniin wa zakariya wa yaxya wa ciisa wa ilyaasa kullun min as-saalihiin len wa ismaila wal yasa wa yunusa wa luutan kullan faddalnaa alal aalamiin alal aalamiin sadaqallaahu al-aziim gis nga kon nee na ibrahima tudd na ibrahim tudd isxaq tudd yaquba tudd nuux eh, tudd daawud tudd suleymaan tudd ayuba tudd yusufa tudd muusa tudd xaaruna fukka ngoog mu tudd Zakariya tudd Yaxya tudd Isa tudd Ilyaasa eh, tudd Ismaayil tudd Alyasa tudd Yunus tudd Loot eh, ñaataa ngi noonu dix-huit ñu ñoom ñëpp ñu nga ci suuratul An'aam mu waxaat mi amaat ay yeneen yoo xam te juróom-ñaar lañ ndax vingt-cinq la daal ni maam Aadama alayhi Shuayb Zulkifli sayyidul an sayyidul anbiya sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal mursalin Muhammad ibn Abdullah alayhi mu ngoog kon juróom-ñaari yonent yooyu ak ak fukk ak juróom-ñettee muy vingt cinq yoo xamante ni eh, yàlla tudd na seen tur ci alquran mu ngoog mu ne nag amul benn xeet benn xeet woo xam ni dinaa leen alak lu dul damay yónni ci ñoom euh, ndaw ba pare mun wa in min wa min ummatin illaa xalaa fiiha nazirun amul benn xeet woo xamante ne wéy na leen jiit na leen lu ma yónni woon naa ci ñoom ndaw suñu borom nee na xeet bu ma yónnul ci ñoom ndaw rek ñu jàngal leen diine rek xeet woowa du leen alak bu ñu dee ci réer du leen alak kon yàlla sàgganewul dara ngoob moo tax euh, maa ngi la wax ajuma ji ñu génn ni la soo demee ci surtu zumar wala nga dem ci surtu mulki sunu borom subhanahu wa taala nga cay laaj euh, alam yatikum naziru alam yatikum nazirun est-ce que leen woon waaraatekat sa yónniwuma woon yonent ci yéen mu ni bu ñu fangee yéefar yi ba ñu dem ñoom ñëpp jubal si euh, safara ba ñëw ci bunt bi taxaw ni rogg di xaar ñu ubbil leen nee na malaaka mi yore caabi ji dana génn ni waaw alam yàtikum nasirun yéen xanaa yónne wuñ leen woon ab waaraatekat ñu leen di wax yàlla di leen wax yonent xanaa waxuñu leen woon ni bu ngeen moytuwulee fii ngeen jëm si ñu ne yang xaaluñu tontu bale ah kañ ah waaw yónne woon na ci ñun yàlla yónne na ci ñun waaraatekat fa gazab naa ñu weddi ko ne ko waxuloo dëgg kenn yónniwu la da ngay wut jaay malin fii di jéem a wut nguur ak bëgg ku la jiital ko nangu kenn yónniwu la wa naa maa nazzala min shay'in yàlla yónul kenn in antum illa fi dalalin da ngeen a réer rek mu ngoog malaaka bi ne ah, kon yéen a yey seen ba léegi nag xaalu law kunna nasma'u aw na'qilu kay ma kunna fi ashabi sa'i ñun kay bu fekkoon ne amoon nañu wala nu jëfandikoo suñu xel kon xam duñu mujj fii malaaka bule leen ma font fa'tarafu bi dhanbihim nuur leen ci seen bakkaar yi añ leen li ngeen doon lekk seen a ngi noonu ku dëgër bopp lii añee buñ ko kon mu ngi noonu mu mel nag yàlla daawud alayhi salaam comme moom la ñu waxtaane bu ñu ko tuddee daañu tudd ay maamam ngir gën a xam fi mu bokk ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ci maamam la bokk mu ngoog yonent yàlla Muusa maamam la yonent yàlla Haaruna maamam la yonent yàlla Yuusuf maamam la ngoog nga di ko topp nag di ko topp ba ci Ibrahim alayhi salaam kon nga xam mi am na cëslaay am na cosaan waaye nag bi ñu dee lim nii maam yi gën a jege rek lañu tudd maam yi gën a jege lañ tudd fee foofa la yem itam te mooy Muusa alayhi salaam di ngeen di ci gën am lu leen leer suñu demee ba ci biir waxtaan wi ndax Muusa moom bi mu fi jógee moom Muusa Yuusa ibnu Nuun moo jël falaam bi ndax man moo ko Haaruna eh, ñoo bokkoon mission daanaka Haaruna sax moo jëkk a wàcc liggéey eh, Muusa alayhi salaam flambeau bi nag Yuusa ibnu Nuun moom la ko moom la koy euh, sunu borom jox Yuusa ibnu Nuun bii nag ci taalibi teel Muusaa yi la bokkoon ci ci taalibi bokkoon yéen a ngi fàttaliku bi leen Firaaw ni dàq ba sëkkatal leen ca baxru Xalsuum euh, Yuusa ibnu Nuun bii bi Muusaa naan ko dëgëral sa fit te xam ne yàlla ngi ànd ak man fas yi nga xamante moom la Muusaa waroon bi ko Muusaa gëddee mu teg tànkam ci ndox mi nga xam xamante ni fa la euh, war a jaar ndox mi dafa tegu ci kaw ne ten tegu ci kaw mu daal dellusiwaat ni ko gis nga yàlla mu ngi ànd ak ñun yu ñu doon ko jéem a waaye bi mu dàqee fasam fas bëggoon lab mu daw génnaat lii yëpp yàlla di ko xamal ni kenn du jiitu sa kilifa kenn du euh, jëkk a tibb sax ci ndab sa kilifa kenn du ko jëkk a tibb waxumaa na sax aw yoon nga di ko jiitu boo demee ci ahlu tasawuf kilifa yu bare bare bari bu ñuy dañuy wax ni booy ànd ak sa kilifa doo ko jiitu bu dee bëccëg nga tollu ci dafa topp ci ginnaawam waaw bu demee ci mbooloo it doo ko jiitu dangay taxaw ci ginnaaw ba mu ne tekk su du gisee ci mbooloo ngeen taxaw ba ñu accueillir ko ba teg ko place ba mu toog ngeen taxaw fi ngeen taxaw ba ñu jiwaat jël leen installé leen ba ngeen placé wu ngeen toog amit kenn koo xamante ca mbooloo ma dana nekk ca wetam pour bu bëggee yónnee wala bëgg am lu mu bëgg a wax kooku mooy nekk digganteem ak délégation bi mu àndal noonu la ñuy tëral kilifa bu dee guddi nag lañu wax ni eh, taalibe bi na jiitu na jiitu sëriñ bi ndax bu luy gaañee bu ñëwee gaañ la yow bàyyi fi sëriñ bi gis nga xam <laughs> naa ñi nga xamante ne ñoom dañuy jëfandikoo xel gis daal eh waay fekk gis nga ngir yàlla amul loolu nu mu bëggee rek noonu lañ koy defee kon nag kooku mooy Yuusa ibn Nuun mu nga kooku moo ko wuutu mu àndoon ak moom euh, nit ñee dugg ci dëkk ba ba nee da ngeen dugg ci àddul muqaddasa te te waa ban Israel yëpp lànk dox dem seen yoon moom ñii Yuusa ibn Nuun moom moo duggoon ak moom bi ñu fi jógee moom mi Yuusuf ibn Nun ku ñu wax Ilias euh, moom moo ko wuutu Ilias moom itam bi mu pare ku ñu wax Zulkifli euh, moo ko wuutu Zulkifli rek mooy Xasqiil Xasqiil bu fekkente ni yéen a ngi doon topp suñu waxtaan wi moo doon menuisier ba nga xam ni yaayu Muusa ba muy jëkk jëkk jëkk jëkk jëkk doon wut fu mu rawalee Muusa te demoon te menuisier ba ni ko daajal ma kees ke borom kees gi ni kon liir yi tax Firawna di rey nit ñi neer bii moo ko jur ba ba bëggoon nëbb xaama dem boole ji ko gis nga moom limit di ko boole yi mu dem ba toog ak na war a wax yàlla téye wax ci moom mënatul wax dañu dóoroon ko fa dóor yu métti yi mun si bii gis nga mu dina gëm Moussa mu topp ci ginnaawam jàng lu bari ci yàlla Moussa gis nga position bi mu nekk ndax boo ne Moussa Yuusa moo ko moo ko wutu Yuusa Euh, Ilias moo ko moo ko moo wutu moom mi troisième position ci la nekk yonent ngi yàlla ni muy def yàlla ay mbiram euh, amul frontière trangaam ak ndamam amul benn frontière kon nag gis nga ko kon nag mel ne diggante yonent yàlla Moussa alayhi salaam ak yonent yàlla Daawuda alayhi salaam ñetti siècle maanaam am na ñeenti téeméeri at yoo xamante ne nii ah tabarkal la dox na ci diggante bi waaye xeet wii di waa banu israil mbokk yi euh, banu israil dañoo dañoo dañoo doonoon ñu bari ñu bari yàlla sopp leen teral leen xeet yàlla teral lañu woon nag waaw mooy banu israil gii ndax boo xoolee tranga ji mbooleem yonent yi alquran tudd ginnaaw Ismaayil ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi ñun ñëpp ci banu Israël lañu bokk yonent yi ëpp ci alquran ci banu Israël lañu bokk mu yàlla tudd leen cité leen nommé leen ci alquranu karim waaye tamit eh, ñu jubal lañu woon mu bokk dañoo jubadi woon mën a tooñ tooñ waaye mbokk yi sunu borom bu lay defar njekk bu defar njëkk nga koy fay njëkkar lu mu yàgg-yàgg di nga mos yendu jantam yàlla bu lay defar njëkk nga di ko defar njëkkar lu mu yàgg-yàgg di nga yendu jantam loolu moo dal nag waa banu israil alquran nee na fa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka yàlla ne képp ku ma jox sama teraanga nga fooyee teraanga ja wala nga caaxaane teraanga ja du la wax dara du ma lu mu yàgg-yàgg tôt ou tard di nga dund dund gu karaj alxasan ndiir moo koy firee noonu dund gu karaj imam alxasan ndiir ca Ziguinchor mooy mooy firee dund gu karaj moomu ñu ngi koy nuyu au nee na képp koo xamante ne nii fa man aarada an zikri fa inna lahu maishatan dank ku ma jox sama teraanga nga foye ko du ma ko nangu de waaye di nga dund dund koo xamante ne dund gu métti lay doon ngoog waaye gis nga teraanga ji ñuy foye yépp nag surtout nag ci seen njiit yi kilifa yi rawatina ñi nga xamante ne ñooy seen homme de base yi lépp lu ñuy tere muy constitution bi bu leen laalee ñu négocier ko wax ci suuf nëpp nëppal ko nës nësal ko bu laalee keneen ku bokkul ci ñoom ñu appliquer loi ci moom dal ci kawam toroxal ko daal di wëlbatiku ni suñu constitution moom lañu am nangam ak nangam ak nangam rawati nag seen attekat yi ñi nga xam te ne ñoo nekkoon justice wa tabaarakallah loolu yi ba banni Israël la yàlla wax waaye képp ku jaar yoon wa nga xamante ni waa banni Israël fa luñ jaarul wax ji yaa ko moom loi daal loi la bu ñu xase ba wote ko ne loi bii mooy loi sàngam amul ñenn ñoo xamante ni mën nañu xëy xëy xëy wëlbati loi ba ci seen propre intérêt bopp mënta nekk wala bu ñu ko xasee defit yàlla génn na ci ñoom yàlla nee na rëbb naa waa banu Israël ci ñaawteef ñu doon def mooy kuñ ku tedd ci ñoom bu defee ñaaw ñaawteef def njombuteef ñu nëpp nëppal ko nës nësal ko mu bañ a jëm kaw bu ko baadoola defee wala borom lam bu woyof wala koo xamante ne bokkoo ci ñoom wala koo xamante nii amul xaalis wala ragale ko dara ñu appliquer loi ci moom toroxal ko weer ko sunu borom nee na lii laa rëbbe woon waa ban Israël lii laa génne woon ci ñoom ngoog lii laa génne ci ñoom kon nag lii dafay valable ba léegi ci bépp réew ndax lii bu nu ko yàlla dee nettali ci alquran lii bu ko yàlla waxee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ko jottali li ma la wax loo dafa nuy moytuloo ñun ñoo ko moom du waa banu israil justice yëpp nag yoon yëpp nag bépp yoon wu war a tegu dafa war a tegu ci kàddu yàlla gi bépp yoon bu ñuy wote bépp loi bu mën a doon bu nekk ñi lànk ak ñi bañ lislaam ñépp dañu war a tegu ci loi yi l'islam ndax loi yi l'islam mooy loi beneen loi bu loi ay nit a ko fabriqué def ko teg ko ba pare nag teg ci jaasi wala teg ci bakkan wala teg ci caabi pour boo nee lu rek ñu ne ci rawatu jaay la doole sunu borom ne nag loolu laa jëppee woon waa bani Israël ñii dañoo demoon ba wérdi gi di jar xaalis wérdi bi demee bay jar xaalis nag ah danañu xam nag dëgg-dëgg Euh, nekkatuñu fu ñu nekk ngay laaj sax yow foo toll ñu demee ba réew ñi war a yor atte yi ndax da ngay tiim loi bi ci sa bët sa moroom tiim loi yi ci sa bët ñu dem ba ci seen biir ñuy tamante dëmm walla ñuy jiiñante ay tàkk-tàkk ki ay nóox nóox ki daar daar moytu leen ñoom diw moytu leen ñoom nàngam te yéen ñëpp ngeen bokk benn koor dama ne loolu gàcc gu rëy rëy rëy la déception bu réer rëy ci ñun ñi nga xam ne dañu yaakaar te toppe gëm suñu justice gëm suñu réew ñu baax yooyu daal suñu sañoon daal bëgguñu daal duñu ko dégg dara waaye suñu sañoon duñu ko duñu ko kii bëgguñu dégg ay gendarme yu jiñante bëgguñu dégg ay avocat yu jiñante bëgguñu dégg ay police yu jiñante bëgguñu dégg ñi nga xam ne yàlla leen dénk doole te askan wi seen yaakaar yëpp jëm ci ñoom nga xamante ni ñoom ak lu métti métti seen seen seen seen slogan bi ngeen wax on nous onu mais on nous nga xamante ni tey fu ngeen taxaw moom ngeen di wax ñu yaakaar leen xamante ni ñun bu ñu juumee yéen a ñuy àtte bu nu defee naka su doon yéen yéen ñuy àtte suñu demee ba yëpp ni yéen wóolatuñu leen ndax la ngeen di waxante seen biir ak la ngeen defante seen biir danañu am gàcce danañu rus dana am suñu yaakaar dana tas trop ci yéen kon am na loo xamante nii ñoo ngi koy ñaan ñoo ngi koy ñaan nay des ci suuf am na yoon xam jarul yëkkati ca kaw ñaaw téef tey kat ñu ngi gën di màgg njaboot gaa ngi gën di màgg te réew mu tegul ci ay loi tegul ci ay charte tegul ci ay sanction lu may ñoom diw ñoo sañ ni wala ñoom diw ñoo nangam nangam bu mu demee ba ba nombre tout Sénégalais yi parce que ba ñu ngi ci treize il paraît ñu ngi jëm quatorze suñu demante ba am vingt six sénégalais vingt six yoo xam ne daf cee tegu te réew yi tegul ci ay sart ak loi yoo xam te ne yu adoptable la yu ñu xam la buñ boo ma tur rek fu mu ñuy jëmee du baax kon nag référence ngeen ci waa bani Israël Israël li yàlla tudd seen tur ci alquran kenn xamul mu toll te dara wàllu ko woon yàlla teral leen may leen jàmm may leen xam-xam jiital leen tànn ay homme de base nit ñu baax yàlla ñoŋal bonu ñoom mu yónni leen ci seen biir ñu làkk seen làkk mel ñu war a mel waaye yonente bu dem ñu effacé la nga fa waxoon jaar seen yoonu bopp jàpp ay yonent yàlla yi di leen rey jàpp ay ay institution di leen suul jàpp ay nit ñu baax di leen toroxal topp seen bakkan ak dina ngir xam-xam bu ñu amoon gis nga fa yàlla du mu jeeg ñoom fi yàlla du mu jeeg ñoom rek mooy fi bi ñëpp leen ŋañ ñëpp leen ŋànk nag ñàkk tënku ci yàlla ñàkk tënku ci doxalin suñu borom rek moo koy indi wala yeesu bi yàlla na ci yàlla kon nag bi nga xamee ni yonent yàlla sanwil feeñ na ndax xam ngeen balaa daawuda yoon yàlla Samwil mii yàlla nag ak daawuda moom mi ngi bokk ca Benyamin bu ngeen toppee seen silsila mu ngi bokk ca Benyamin xam ngeen ni euh, taaluuta taaluuta ak Chanville ak Daouda ñii ñoo bokk daanaka ca silsilat yonent yàlla Yanqooba ya ay sët sëtaataat lañu ci Yanqooba ndax kii nuy wax Chanville euh, Taaluuta te mooy fas yéene nekk laytaayu waxtaan wi ndax Taaluuta mii yonent yàlla Chanville mi la tombeloon waaye doom bàyyi yàlla mu yuusufa ya dafa am ku ñu doon wax yahuza ñoom moom yahuza moomu ak laaw yi ñooñu ñoo doon doomi bàyyi yont yàlla yuusufa ya sànni woon ca teen ba gis nga ñooñu yàlla dafa génnee ay doom ci ñoom ñoo xam ñoo doon doon nguur gi ñoom ay buur lañ daan doon ñi nga xam ne ñoo bokk ci laaw yi Yahuza moo daan jur ñi am nubuwa gis nga Benyamin ma nga xam ni moom lañu waxoon ni sa doom ji sàcc na te yuusufa téye woon ko xàmmali koo ko fanaan ak moom ba guddi mu ni ko maa ñoo bokk ndeg bàyyi ndax may sa mag Benyamin moomu mooy maam ci Taaluuta ñoom nag yonent daw ñoon am yonent waaye moom borom mécc la woon moom ab wuuda la woon nekkoon wude bu am personnalité yàgg ca kaw njool am ba bëgg boppam lool nga xam ne bu musaan di xëy si mbaar mi tabaarakallah ba solo ba jekk moo tax gis nga yàppaari soo métier gis nga métier soo ko amee danga koy fonk bul dégg lañ la cay wax ndax daaw dem nii ñu fas yéene waxtaaneel ab tëgg la woon gis nga kon ci ñi nga xam te ne dañuy xeeb nit ngir aw santam wala ñuy xeeb nit ngir liggéeyam ñooñu nañu xam ne yàlla faalewul nit ak lam bu diis ak dignité gu àndul ak ngor àndul ak xam-xam àndul ak diine fii ni ànd yàlla rek am solo na ngeen lu baax diggante bi mbokk bi Samweel bii bi mu feeñee ci ñoom dafa am ñaari doomam yoo xamante ne dañ doon yëngu ci wàllu justice mu fal ndax moom ci sëti laawi ci la bokk laawi laawi mi changi mii ci foofu la bokk déedéet yaxuza ci la bokk waaye taaluuta moom mooy nara a bokk ca sëti benn ya bi ñu demee ba gis ni doomi chanville yi chamil nag am nañu ko bind chine am nañu ko bind sood am nañu ko maanaam euh, la euh, bi ñu ba gis ni doomam yi ay juge lañu waaye li ñu doon doon ay juge dañu jaay verdict yi xamante ni dëgg xaalis lay jar bu ñu boo bëggee àtte la dangay wut say avocat fay leen lu bare bare bare bare ñu jël ab pool boo xamante ni ñoo lay défendre lu mu nekk nekk nekk dëgg daañu ko amortir du ko motoxañ du ko motoxañ ba dëgg ga mujj na doon aw fen yooyu moom lu waa kër saint yii doon def di nga gis tooñ gu wér cën ni fang ñu xam ne kii moo tooñ ñu jël tooñee di ko làq-làqal di ko làq-làqal di ko motoxal di ko motoxal ba xëy ni tooñee du dara xool bëccëgu dara kam ku rey nit mu wóor que ni kii moo rey kii amul lenn lu ñuy def ñu daal di euh, euh, gan ni maladie mantu xam nga maladie mantu euh, daa dof bi mu koy rey dafa àndoon na sagam am dof la xoolal ma yooyu yooyu nag mbokk yi loolu ko jeexaat rek am foo ko dégg wala nga am foo ko foog yàlla yàlla defal jàmm yàlla defal ñu sutura maa yem foofu seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi Assane Thioune moo nekkoon technique bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.